imam parcelle woote woo gars yi woote woon nañ. waaw euh, ñoom Ousmane Sonko ak Ahmed mm-hmm. Aidara maanaam waa yeewi daal. waaw mobilisation bu doy waar. Mm-hmm. ba ñu xëyeet ñu dàbbali ko ci quatorze régions yi donte ni amoon na xeex. Mm-hmm. le seize bi ñu Ousmane Sonko xëy war a wuy ji. ba léegi la amoon amaat maanaam ñu dogaale ko fañ ko dogaale woon. daan ni boucan dafa am ni ko coppet yóbbu. léegi boo jàngatee li xew ci événement ci ñetti fan yooyu yëpp ban jàngat lay doon. waaw jàngat bi am na ci loo xam ne mën nga wax lépp politique la nag ba mu jeex tàkk lépp waaw tàmbalee ka la quatorze la quinze ba la seize lépp ay stratégie politique la mhm. amul leneen lu ci rax euh, yeewi askan wi benn coalition politique la mhm. buy politique mhm. sentir nañ ne ñii ne ci nguur gi dañ leen a bëgg a tere seen candidat bokk 2024 ñu mobiliser wu pour wane seeni force wane ne ñoom tamit dara mënul dox seen diggante loolu yëpp ba léegi lu legal la ci réew mi parce que ab parti politique dafa am sañ-sañu di woote ay rassemblement ay manifestation loolu lu légal la loi yi may nañ ko mhm. moo tax bi ñu ko demandé may nañ leen ko def nañ fa seen démonstration de force euh, nit ñi gis nañ ne am nañ toole mën naa am sax ñoom ñooy premier puissance à part nguur gi boo xam ne ñoo fi def face ba nga xam ne bu nguur gi di tiit ay mhm. élection wu ëllëg ko fi mën a jële ñoom lay doon mhm. le quinze bi tamit gis nañ manifestation yu wuute ci ay gox am na yu nu autorisé am na yu nu autorisé wul autorisé wul mhm. yi nu autorisé nag mhm. amul benn problème waaw waaye yi nu autorisé nag yëpp am problème loolu nag war nañ ko jàngal kon waaye dégguma la de yi ñu autorisé yi nu moo am problème benn ci ah, problème am amul problème waaw pën a tàkku fa xeer jógu fa dara xew fa yi nu yëpp waaw yi nu wul nag mhm. yëpp am désordre wax nga dëgg de léegi nag mu des kiy tere manifestation li taxoon mu koy tere da doon wax ne. Mhm. dafay bañ ay perturbation am. waaw moo tax mu koy tere. Mhm. trouble de l'ordre public. waaw mais bu ko teree ci lay am te bu ko terewul du am. Mhm. mais ah, loolu trouble de l'ordre public bi ñuy bañ. Euh, buñ ko teree mu am. waaw te montant buy tere danaan daw trouble de l'ordre public mooy tax mu tere ko. mais bu ko teree ci lay am moom mais nañ dëpp loi bi. Mm. moo tax tere manifestation exception la war a doon juin bi. cest à loolu moo war a nekk dernier mot. Mhm. mais jàngat yi loolu sénégalais boo laaj bu dee honnête na mu wax la dëgg. Mhm. manifestation bu ñu interdire mu ëpp danger bu ñu interdirewul. bu ñu interdire waaw. d'accord toujours bi ñu autorisé danañ ko def ba noppi dem seen yoon ñëpp ne ci jàmm. Mhm. mais bu ñu ko autorisé wul rek même bu doon ñaari pënë sax. dana am tuuti conséquence man nag jàpp naa ne loolu war nañ ko uta bon am na solution sax dañoo toppul solution bi parce que solution bi moo taxoon. ñu def ko mu nekk. droit constitutionnel. pour bañ ñu xañ ko nit ki. mais ànd ak loolu yëpp souvent bu neexee préfet yi duñ ko topp. Mhm. loolu nag lu ñu war a seetaat la bu dee yow ordre public bi rek nga soxla. Mhm. te nga gis ne autoriser ko mooy jàmmi public bi. Mhm. autoriser ko ñu def li ñuy def mu jeex mu dem. d'accord soo leen autoriser nag ñu def fa safaan sañ ngaa woo ña signé. ne leen yéenay responsable yi ñett ñi ñëwoon signé nañ lépp lu fa xew ñun la engagé. bàyyil manifestation yi jeex nga yónnee leen convocation. ñu waaxu ndànk ñëw nga jël charge yi yëpp yan leen ko mais ñay taali pone yow ñooñu bu sa yoon nekk kii moo signé nee na man maa engagé lépp mm. <laughs> bàyyi leen manifestation bi jeex même bu ñu fa nekkee di xeex fexeel nga tàqale rek ba leen ñu dem bu ñu paree xoolal ñi signé woon nga woolu leen ñu ñëw dina ñëw dëgg de parce que ci seen ndodd lay. voilà moo tax après doo xam ndax ñoom. Mhm. topp luwaa bi moo leen gënal wala wane teef bi moo leen gënal. d' accord mhm. léegi ci biir loolu ba la ñoo ñëw ci bésu le 16 bi. Mhm. Euh, gis naa ci même bés it Dakar dañ koo bañal. maanaam Dakar ah, autorisé wuñ ko mais raison yi am na yuñ tànn mel ni Touba biñ bañaloon nangul nañ leen. Mbàkke def na. waaw def loolu damoo ci jàngat. le fait ñu aayee dakaar ni fële moom. waaw parce que xam nga Dakar ñoom dañ jàpp ne. Hmm. Sénégal bu doon nit ndakaaru mooy bakkan bi boo ko fattee rek mu dee <laughs> loolu moo tax mooy ndakaaru moom yenn yi bul xalaat ñu la ko fi autorisé waa parce que dañ jàpp ne ndakaaru foo xoj rek hmm. mooy maîtriser nga réew mi yëpp te effectivement noonu la demee parce que lépp réew mi dañ ko concentré wu Dakar hmm. si ba fii tàkk fu feneen tàkk lu mu tàkk-tàkk du def benn impact ci réew mi mais bu dakaar tàkkee rek day mel ni Sénégal yëpp a tàkk. dëgg la looloo tax dakaar moom bettul kenn. si biñ ne autorisé wuñ ko bettul kenn. wallaay dëgg nit ñi dañu continuer xam ne nii la mënoon demee. Mm-hmm.